jamono metti na wante itam xel mooy muñ te mooy liggéey jamono xol nga bàyyi kook sa borom kooku mooy méthode mag ñi ku ci génn itam rekk yàq sa dund yàq sa dee waaw kon yal na nu yàlla taxaw yal na yàlla defal nu jàmm wéradi yi bare na yàlla am na saafara yal na leen saafara te mu bañ nekk dee soxla yi bare na yal na yàlla faj ko kilifa yaa ngi fi seen kattan ak gëtul ci résoudre problème yi kon nag ñoom itam yàlla dimbale leen boole leen ak njaboot yi ba ñu mën a résoudre problème yi loolu lu jara la ndax li tax ma wax ko damay dégg ay dég-dég yoo xam ne du noonu waaw du noonu yàlla nag bu dogalee dogal la waaye du noonu waaw bu dogalee nag dogal la waaw ndax wolof ñoo ni ku la ni mbas maa ngi ñëw ne ko ay ca xamuloo bakkanam moo caa des wala sa bakkan moo caa des ba tax na kon nag lu bàyyi ci xel te am sago te bañ fu nekk nu taxaw fa parce fu nekk boo fa taxawee daa dégg lu nekk te ku dégg lu nekk ñu yett la amul saa